bi nicmatihi tatimu salihat wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin afdalil mawjudat wa madadil kainat wa ala alihi wa ashabihi alxirati albararati min alxaliqat wa radiallahu an cheikhina wa mawlana ahmad ibn muhammadin tijaani xaatimil wilayati almuhammadiyati wa an xalifatihi qutbil irshaadi wa gawsil ibaad mawlaana saaxib alfaydati tijaaniyati alkubra cheikh ibrahim ibn alhaaji abdullah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokki julli ñi nga xam ne ñu ngi déglu rajo bi ñëpp fu ñu mën a nekk ci àddina di sant yàlla beneen yoon tey ci àjjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru koor kon koor gi mu ngi tàggoo waaye li ñuy wax rek bu demee yàlla na barkeem des ak ñun yàlla na yëkkati koom des ak ñun ndax Baye wax na ci xutba gi ne ne pakk la ñeel ñi ragal yàlla luñ barkeel la itam ñeel ñi gëm yàlla bénéficeuka bénéficeukaay la itam ñeel ñi jaamu yàlla soppe la itam moom weeru koor wi ñeel ñi xam yàlla kon nag weeru màgg mu ngi tàggook ñun di dem buy dellu si yàlla ñu fekk ci mbir ya gën a kawe fii ci àddina ci jàmm ak yokkute ak yëkkatiku ci zaahir ak ci baatin te mbooleem li ñu ragal nii ci corona bi yàlla na ko yàlla demee yàlla bu mu ñu lor yàlla bu mu lor suñ kenn te su demee bañ koy fàttaliku itam yàlla buñ ci am fàttaliku bu ñu naqadi te yàlla nañu yàlla dimbale itam bala ñoo sonn yàlla nañu yàlla dimbale bala ñoo sonn yàlla nañu yàlla dimbale bala ñoo sonn yàlla demee ay ak yeneen ay yi nga xam ne yëpp yàlla ngi leen nëbb yàlla bàyyi wax na ne te jëlli yaatam yëpp salaam rek lañ ci lañ ci ci àttan waaye li ci des yëpp suñu ko tegee ñu sonn kon nag yàlla ñu dimbale yàlla bu mu ñu sonal door ñu dimbale yàlla bu mu ñu sonal door ñu dimbale yàlla bu ñu sonal door ñu dimbale léegi wax ji li ko waral mooy li nga xam ne yéen xam ngeen ko ñun ñëpp ñu xam ko mooy naafila gi ñuy def fii ci Medina àllarba ji di ñëw lañ koy xat mu li nga xam ne nag moom la nit ñi baaxoo woon te bàyyi bàyyi leen ko fii muy aada bu rafet boo xam ne moom lépp lum def rek mën nga ko yóbbu ba mu dem ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne ki doon naafila demee ba ci bis bi ñuy xat muy àllarba ci guddi nekk loo mën na ko indi joxe ko ñu jox ko ko ngir yàlla ak Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ki nga xam ne nag moom lañ dénk loolu Cheikh Abdourahmane Niass mu bàyyi joxe na numéro joxe na itam numéro boo xam ne képp koo xam ne génn jafe na la wala ñëw jafe na la soo ko yónnee ci Orange Money moom dana ci jot te danañu ko indil ñu jébbal ko sëriñ daara bi nga xam ne moo doon naafil lu ci nit def nag benn bu baax bu ci nit def muy weer wi ñu nekk juróom-ñaar fukk lañ la koy bindal waaw kon loolu jar na njëkkalante balaa jeex ndax bu demee balay ñëwati déwén moo tax yàlla ñu yàlla defal tawfeex nañ ci góorgóorlu bu baax lu ëpp liñ ci daan def ndax sëriñ daara wax dëgg yàlla góorgóorlu na toog na fi muñ muñal ñu ba waajuram sax génn na mu ci Mauritanie muy Cheikh Abdoulaye Rabbani waaye ak loolu yëpp dafa des rek continuer liggéeyam amul benn jiixi jaaxa bu nekk ci moom ba liggéey bi dana mat àllarba kon nag ni mu góorgóorlu noonu nañ ko wan nañu nitam kontaan nañ ci liggéeyam kontaan nañ ci liggéey bi muy defal baay kontaan nañ ci liggéey bi nga xam ne itam ay waajuram ñu ngi ko doon defal baay kontaan nañ ci maamam muy rabbaani li doon defal baay te ñoom baay wax na ne gërëm na leen ñoom ñëpp ndax bind na rabbaani leetar ne ko gërëm naa la gërëm naa sa mboolee mi doom mboolee mi doom nag bu ko waxee sa dee dugg nañ kon nag nañ góorgóorlu ci moom ngir utee ci ñun tem tam ngërëmal bàyyi ndax lu leen nit defal bàyyi nga ko defal ndax bàyyi wax na ci tari mu nga xam ne moom la mujj a déglu fii dem London ne waa rabbaani ni ngeen bégalee suma xol ak mbég gi ngeen dugal ci suma xol yàlla na leen ko yàlla fay ah ñooñu nag defal leen mooy defal bàyyi rek kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax te bu kenn tayal ba bis bi romb la te defoo ci lu ëpp li daan def ndax yàlla may la lu ëpp lim la daan may yal nañu yàlla boole defal tawfiq ñun ñëpp yal nañu yàlla boole wattu ci lislaam wattu ci gëm yàlla te ay wii nga xam ne ñëpp ku mu koy musul ragal ko yàlla na ko yàlla demee yàlla bu mu ñu lor yàlla bu mu ñu lor ñu koy fàttaliku yàlla boo ci am lu ñu naqati lépp lu ñu am ci biir Sénégal ci biir Sénégal yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla wattu lépp lu bay am ci biir Sénégal ci biir Sénégal yàlla na ko yàlla wattu yal na yàlla wattu mboolem mbindeef yëpp defal jàmm àddina bi lépp boo defee ñëpp mën a am xel yu dal ki dox seen soxla yi am xel yu dal itam pour jublu seen borom jaamu ko ni nga xam ne noonu la waree yal na yàlla defal ñu loolu ci barke Baay ci barke Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci barke Mawlana wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Alfayda c'est la référence